maa woo nooree na si kii di gërëm nooree ni parce que wax na tamit ñuy wax góor du projet yëpp mhm. ay ay ay ay divorcé yoo xam ne dañoo mer seen xol neexul jigéen a leen di tëddee yow divorcé yow mënoo bàyyi uus alors gannaaw gannaaw ba voilà <laughs> alors euh, moom tamit def na benn réaction sur Facebook comme moom nu koy defee moom Facebook mooy këram alors euh, nee na ëllëg du añ du reer waaye lu jara sóor la. li may xeex te làqu seen. Euh, gàcc démb gàcc démb. reeni remontada. Hmm? remontada mu bind na ko xaw ma ne remontada fan la est-ce que. ñi may xeex te làqu te dafa dafa bind laaxu. ñi may xeex mais lim bëgg lim bind dëgg. làqu waaw mooy ëllëg du añ du reer. waaye jar naa sóor. mu ne ñi may xeex. te làqu seen seen gàcce démb mm-hmm. leen di remontada. léegi remontada léegi remontada laa comprendre exactement. voilà même man remontada xam nga ko. remontada xam naa ko. mais peut-être lu ko dafa dafa maanaam. mais lële la li wax nii ci suuf. Mhm. boo ko càmbaree mooy la mu bind ca kaw. ëllëg lu añ du reer waaye. waaye da ca suuf ça veut que fu gars doon xaaree miyaa. peut-être muy na. yow dëgër nga fii de. bonjour Nana si je ne me pas on dit en toute franchise voilà c'est la même chose alors euh, Nana ñëwal donc yow sànq ba léegi yaa fi nekkoon di wax yéen. loolu mhm. façon xas na. Euh. dëgg la parce que ñu bëri dañu doon dañu xaar peut-être mu wax te en plus voilà je ne sais pas xaw ma ndax vidéo envoyé ko pare mi yaa nee moom gauche wala droite bi maanaam. pousseuse ba tey la Ousmane waxoon na ko fi waaye moom nee na marié la xaw ma ne ko moo ko takk loolu tamit dee si ñëw. moom moo ne marié la wala pour marié yi la. daf ni gauche wala droite pour marié yi la. Mhm. moom bokk si parce que moom marié la du célibataire dama. am na ful la de. Mhm. waaw laay lii laa parce que am na am na ñu doon wax naan takk suuf bi. Ah, ah, c'est très ah dama ne am na ñu doon wax takk suuf bi. loolu ba tey man wóoruma daal. <laughs> léegi. Euh, Noo Fess ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax c'est un grand artist wax dëgg yàlla nekkatul artiste kay. artiste yow fexeel ba génne ko ci artiste. année ah, parce que da fexe ko yow mu yaa léegi woyatul. bu gëjee woy ay parole am ay artistes ñu ngi fi di woy leen bind. barki yàlla moom il n'a rien compris. lu garaaw laa lay wax nii eh, artistes yu bëri ba pare ba pare même même bu c'est-à-dire au sax moom créé na musique boo xamante ni moom du boo xamante ni tey jii ñu bari ñu ngi ciy teg seen i seen i i voix ci way donc moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mais nag euh, jàmbaar waa nekkal ci leneen àdduna mul benn solo gis nga page boo ko ubbee ba mu fees da da ngay koy tëj ubbi beneen. Ah, c'est mieux. noo man je pense que euh, tëju ko parce que ñàkk koo tëj moo tax saa ku jigéen gi defee sortie ngoon guddi mu mu mu def ah, sortie baa mu fësal mais mais gis nga bësu jàmbur. lu waa dama ne dama ne bësu ba tey jàmbur jàmbur la gis nga sunu lu mu neex neex sama moo ko dàq. moom mooy am dama ne. sunu lu mu neex neex yow yaa wax léegi ne. moo tax may laaj sama bopp fa laa far. waaw waaw kii yow yaa wax léegi <laughs> ne moom euh, siiwu tojul fenn yaa ko wax. non daa siiw waaw. léegi instant bi juste man xam naa ko. xam naa ko parce que fi mu toll nii loo wax après mën koo changé waat. Hmm, mais gis nga sunu lu mu neex neex sama da koo dàq. Hmm. sunu kër gi sunu et oto bi sunu nàngam sama oto bee ko dàq wala sama kër gi est-ce que dégg nga ma bu baax a baax. sama jabar la woon wala sama nàngam la woon loolu yàlla moo ko dogal léegi nag su jeexee dafay jeex miyaa sax woy na ko su jeexee jeex na dafa am loo xamante ni c'est-à-dire foog nga nekk gentleman dëgg pour mën ko subir pour mën ko àttan divorce moomoo du ñëpp a ko àttan mm-hmm. divorce du ñëpp ko àttan mais nag ginnaaw ba keneen ki tourné na page yow fexeel ba tourner page loolu mooy def sa ah, fierté ah yaa ngi wax na loolu mooy def sa fierté loo loolu mooy def sa fierté mais aussi moom mooy def sa moom mooy moom mooy refléter sa dignité bi nga xamante ni moo nekk ci yow. waaye euh, mi yaa gis ko daa tourné page. ba ma ne ah, loolu loolu leer na et je l'assume. dafa tourné page. ku dox mi yaa gis no good no face ba léegi. man loolu. Hmm. bàyyi ma. arrêteel arrêteel nag. ah, ah <laughs> xalaas yow yéen xanaa xamu leen jigéen bu bàyyi gis nga jigéen bu bëggee dof la jigéen. Mhm. dama fee toogal nag sénégalais lambda bi jigéen bi nga xam ne man maa leen fi toogal à chaque fois ma fàttali leen ko gis nga jigéen bu bëggee danga naan kii mënatumaa bàyyi kii dof la kii dama koy ren di jéggi lu ma ko def ndagal na parce que damaa bëgg ba gëmeew ma mais jigéen bu la suur dafa garaaw kooku du la xool dootul xoolal da lay feleesu lu garaaw laa lay wax. moo tax góor bu fi am jigéen ju baax jigéen ju la bëgg téye ko parce que dafa jafe moom moo ko wax léegi du weddi li ma wax parce que dañu ne giwil dañ fee bari. bay waxu giwil déglu ma rek te góor gu la fi def la naqari ah boo boo bu sa bu la sa conscience mayul dëgg dëgg je pèse bien mes mots bu la sa conscience mayul nga xam ne man lii war naa koo def wala lii waruma koo def dangay jàpp ni góor ñëpp a dangay ngay ne xaaral xaaral ma dem seeti leneen ah. xaaral non mais. bu tudd loolu da may déglu gis nga jigéen ñi fi nekk ay jiwul ñëpp. waaw lay dama lay wax. mais loolu ça existe. non mais ça wu Sénégal la. dafay am dafay am. ay réalité la yu am fii. amul Sénégal bàyyi loolu waaw amu ko parce que gisoo ko. léegi yow léegi yow go ñi ñuy wax ay toot na. tuy ñaari tur si bay wax jooju. loolu amu fi laa wax. am na fi waa loolu la gis nga nit tëbul tëb rek nekk mag mbaa mu nekk xale dafa am processus booy jaar est-ce que dégg ma. waaw ndox mii tëbul tëb rek wàcc ci butéel bi dañ ko cee sol. waa léegi ki nekk giwil moom lan moo ko ci def mën na topp bànneexu ba kanam mais mën na am fu mu jaaram góor ba tax mu poussé ko loolu. ah góor ñu góor ñu poussé wu ma nag cautionné wu ma nag ne jigéen dafa war a nekk giwil. cautionné wu ma ko ndax man duma ko def te def loo ma ko kenn mais dama ne nañu xool fond problème bi lan la jigéen ji lan moo tax moom ak góor ak ni ko yàlla bindee lan moo tax mu taamu jigéen nañ ko xool d'accord alors Ousse ñëwal hmm. Ousse yàlla moo bu ko damay waxtaan ci dara si dara non <laughs> fees non fees pour lan première mhm. muy bu waxee ñu jël ay waxam indi ko ci Mia. Mm. te pourtant ku koy suivre chaque mu ngi posté. waaw ah, mais bii moom post post. déedéet déedéet déedéet nañ na maanaam déglu ma rek. chaque jour chaque mu ngi posté. chaque jour posté moom moom naturellement. Mhm. day bind mais saa yu tombee rek. Mhm. kii génne benn dara wala dara ñu indi post ba mu posté ce jour bi. Mhm. indi teg na moom lay waxal. comme ni yaa gisee ni muy wayee ñu dem loo fees la merci pour lan. mais mais mais déedéet déedéet. maanaam ëllëg du añ du reer waaye lu jar a sóor la. loolu ku nekk ko war a dégg. mais fem us us li la man kañ fem bi maa maa ngi ñëw. kàcc démb démb. gàcce démb. waaw démb ka moo génn du Mia Guissé. yow pour lan nga jàpp ni Mia parce que sa yow yow parce que yow yaa jàpp Mia Guissé. yaa gën a déedéet yow yow. mais yow yaa ngi fen yow yaa ngi fen arrête kat. sa morom arrête yow yaay kenn du ko yab ci sa. pour wax ci moom. <laughs> ku wax ni moom lay waxal da ngay fen. wuy lii et eh, lii lu ku wax ni ci moom lay wax fen nga. te No Face daa gën a nag man man sama baat ci kaw ku wax ni No Face Mia Guissé la waxal fen nga. Ah. ku ko wax fen nga. ku ko wax déggoo ku ko ci wax fen nga xamoo li nekk ci xolam bu muy bind lu mu wax. xamoo li tax mu billaahi wallahi barki Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasulullahi borom Tuuba ku ne Mia Guissé lay waxal fen nga. kum doon. man bu dee moom lay wax defi naa ñëpp ku ko. moom li ne ci xolam laa lay wax. ku ne ci ñun ñii ku ne moom ngay waxal fen nga waxu dëgg. waaw dama ne. waxu dëgg ku ne moom lay waxal. ne bëri pexe weesuwul nettali gént moroom li nekk ci xolam. xaw ma xaw ma ko moo tax ma ne ku ko wax fen nga. Mhm. ba muy bind xamoo ku muy waxal. ouz. man jarul ouz déedéet déedéet. muy wax bàyyi ma dem jarul ouz. jarul aas jarul aise. yaa gën a xam ne yow. ouz nel yow man waxu tam ma yaa gisee. tey jii peut être mu yaa gisee mën a génne. man c'est son opinion man ma ne woon ko mu yaa gisee. waaw non am de bu xasee ba ni képp ku di wax loolu. Mhm. maanaam àgg si moo yooyu noonu. balaay opinion am la. Oh. man maa ni ma waxaat ma waxaat ko barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sama yaakaar damay wax pour nga wax pour mu wax la ni loolu laa waxoon non xam naa la maa ni barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul léegi borom Tuubaa nii laa ko waxee woon képp ci ñun ku ne moom mi yaa lay waxal fen nga pourtant na ñoo xam ne fenuñu nag. mani. waaw yow yaa jàpp yow yaa ko jàpp. di di parce que di di di di di bàyyi ko dem bàyyi. man joore joore. dara. joore préféré joore impôt préféré dara joore leneen. Zoore nii. ak xam nga Zoore woo Zoore nee Zoore nga ne nga ne mu ne ñeeme fële. ñi wax lii amul xalaat lu ñi wax ñee wax kenn ku ci wax kenn ku ci wax kenn ku ci wax wax nga lu la neex kenn xamul li nekk ci xolam man maa ni kenn xamul li nekk ci xolam maa ni képp ku wax ni maanaam moom moo def fen nga parce que bëri pexe weesuwul nettali sa gént moroom. waaw loolu dëgg la loolu olof a ko wax kon nag ko wax ni moo tax mu doon wax fen nga xamul kon kon fen lool ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni mm. kon fen lool ñi nga xam ne dañoo jàpp ni waxul ak mi yaa gise parce que kenn xamul lu nekk ci xolam déggoo li ma wax waaw déggoo li ma wax xanaa ah, li nga wax maa ni waaw ma waxaat la ko dégg nañ ko maa ne képp ku ne waaw lii mu bind Mia la Mia Guissé fen nga waaw léegi fen lool ñi nga xam ne dañoo jàpp ni waxul ak Mia Guissé déggoo li ma la wax parce que kenn xamul li nekk ci xolam déggoo yow yow yow yow bu ñëwaat ci yi may wax di dof dof ah! li ma lay wax dégg ko bu baax a baax nga dégg man maa malaa ak ma laa dégg noo fees li mu bind waaw këpp ku ne Mia lay waxal waaw fen nga ma la fen lool ñi nga xam ne ñoom aussi dañoo jàpp ne waxul ak mi yaa gisee. yow xam nga fen loo nga ñi nga xam ne dañoo dañoo jàpp ne mi yaa lay waxal. kii neexul ah xalaas léegi d'accord léegi kii neexul. us hmm. d'accord léegi nañu jóg si ma ci jugee parce que leeral bu ma li ma lay wax. déglu ma bu baax. déglu ma déglu ma bu baax moom moo déglu ma waaw waaw déglu damay leeral man ma sama bopp waaw man sama bopp mën naa leeralal sama bopp yow boo xamante ni sama bopp waaw yow nga bëgg koo setal moo tay loolu moom. yow yow moom à chaque fois nii la. gàttu kenn yow moom yow moom fi la. bien sûr bien sûr fi la arrangé rek loolu foofu ngay waxee. mais mënoo mënoo fenloo ñi nga xam ne ñoo jàpp ne mi yaa lay waxal. Ah, maa tay de ba pare nga jox dëgg ñi nga xamante ni. Ah, ñoom ñoo wax ni waxu leen mi yaa ba pare nga bëgg ne kenn xamul li nekk ci xolam. c'est impossible maa tay de. Ah. allez continue ma ni. waaw képp ku ne noo fees mi yaa gisee la waxal. Mm-hmm. da ngay fen. soit un peu équilibré. déglu rek. bàyyi ba mu àggale rek mu xool fu mu jëm. noppil ayca demal ma ne képp ko wax ni. mu mm-hmm. yaa gisee lay waxal da ngay fen leeru la. Mm-hmm. ndax xamoo li nekk ci jëmmam. da même ñi foog ni waxul Mia ñi wax ñi ñi foog ni waxut ak Mia. bu bu déglu ma déglu ma déglu ma waay bàyyi ma bàyyi ma moom ma leeral lii. non daal wax nga tam. dafa ma rek. demal ñi foog ni waxut ak Mia macha allah xam nga lu tax <laughs> seen xel sell na. eh waay Samba. ñooñu ñu correct leen. dañoo positif eh waay <laughs> ñu correct leen. xalaas. yaakaar na parce que mu dëll. parce que moomu gis nga foog naa ak yaakaar naa ak dégg naa ak ñaaw njort tas na ànd yu bëri. Mm-hmm. yàq nay diggante yu bëri. Mm-hmm. parce que moom jëmm la joo xamante ni ku koy suivre day bind day wax. moom chaque jour mu wax waaw chaque jour mu bind ko du moins. depuis. Mhm. bu fekkoon bi mu taseeg soxna si la loolu am dañ naan waaw mais noonu lañ mës di dundee ñoom ñaar ba lii am am tey bàyyiwoo ko di joxe ci ay avem ak lu ne mais ñun ñi dëgër fi te suñ gat nekku ci. <laughs> ñun ñooy jël affaire yi di ko utloo ku ko moom mooy dal ci Mia pourtant Mia wooy loxo bu la bàyyi loxo ngi toog. waaw wax nga ko ah. dem ci émission yaa ngi comprendre mais ñëpp jël ne New Face lay waxal léegi fuñ ko teg fuñ teg ni moom lay waxal te pourtant Mia dëgg la wax noppil ma àggali. parce que loxo yooyu noppil ma àggali. terew ma noppil waaw noppil rek ma àggali li may wax. ma ni no face toog fi toog ñu nit ñu dëgëraat fit ba dee ñun Sénégalais naan Mia no face lay waxal est-ce que Mia no face la waxal pourtant li Mia gisee wax c'est logique olof danaan la longoo neex na waaye koo bàyyi mu dem ak ci mbaggam. chaque fois bu koy wax dafa am dafa am koy koy koy koy koy. yaa parce que wax. yàlla sax ci boppam dafa am nu muy demee parce que Dieu la en parabole. moomoo doomu aadama da ngay positif doomu aadama da nekk nit. tey jikko bu sell la indi ndeysaan. non déedéet damay wax. non non doomu aadama. da koo arrangé rek doomu aadama dafa arrangé maa tey. Hmm, sama jikko la sama jikko la ba tey sama jikko la nangu maa ko jikko la jël la nit. da ngay positif lu bëri dafa yàqu ci àdduna moomoo ci ay diggante ba ci ay xarit ak xarit da ngay gis moomoo lu garaaw tey jii sa whatsapp da koy téye ci àdduna maanaam nit dina la jege ba lor la nga gis xoolal taf rek te pourtant xoolal li nekk sa xol nga dégager noonu rek de mais ñi nga xamante ni positif ci say contact walla dara. ñu toog la ñuy toog naan. man lay waxal wala diw lay waxal. parce ñoom ñoo lay utal. Hmm. ngay waxal. ñoom ñoo utal. Hmm. fi ngay jëm. ñoom ñoo lay utal ki nga war a làngal. mais moomu maa ngi jéggul moomu man doo ma utal ki may waxal. Hmm. kon nga ñàkk fay. kon noo fees duñ ko utal ki may waxal. gis nga gis nga dafa wax lu am solo. des nit dina def statut kenn ki viser boppam. ça dépend parce que ñenn ci ñoom ñooy def lu leen naqari ñu posté ko ci seeni ñenn ci ñoom ñooy def lu leen naqari ñu dem ci réseaux sociaux yi di ko fa waxe nañu waxante dëgg gis nga fii ku bindoo ni tama rek ñu tëggee la ñaari boor Mia su fekkee dafa way am loo xamante ni ñun dañoo jàpp ni ex jëkkëram lay waxal parce que nag bu nee loxo loxo bu la bàyyi loxo ngi taxaw kenn ku ci nekk sa xel day dem ci kooku. et is kan moo la wax ne defu ko exprès pour nit ñëpp seen xel dem ci moom. waaw artiste la ñoom même très bien. c'est la même chose loolu loolu très très bien. c'est la même chose ko ku góor ki aussi li mu def. Mhm. gis nga fii bu ñu kenn teg ay ñu manqué. te bii kenn ku ci nekk nag la la arrangé mën nga koo wax te bii quoi. te bii nii maanaam euh, dem wéeruwul. waaw dafa dem directement waaw. ñu doon xaar ñu seen gàcce démb maanaam dafa tudd démb. waa léegi démb wax temps bi ak lii ak temps bi. maa lay maa ngi lay wax lu am solo tax ñu ni maanaam mi àgg si lay wax complètement comme tey jii nii mhm. wuy ndaxte bi voilà euh, lii confirmation la maanaam mhm. commentaire bi nga xam ne mhm. paa bi commenté na ko confirmation la si di suñu doon wax sànq no face maanaam directement kii bi lay waxal euh, mi àgg si lay waxal ma sama bët yi dafa wax baaxul donc xaar ma xool bi ndax dinaa ko mën a gis pour lire leen exactement euh, paa bi du mu maanaam no lu mu ko tontu ça boo déggee tontu bi di nga xam ne kon no face mu yaa gis la doon waxal carrément donc. gis nga sa moo téye bës bi. waay gaynde Ababacar Nabi Fall donc loolu la ko loolu la ko wax. waaw dama ne. no euh, tontu ko ne mhm. boo amagul sët say doom ñoo war a maase ça veut dire que moom ak no ñoo war maase pas seetaan. moo dàq ci ndaje. wala waxul satan bu toll <laughs> ni yow ah satan mooy ça veut dire seytaane satan bu toll ni yow di tooñ dooru sax. mauvais perdant mauvais perdant. xanaa sa doom moo bind lii kay ndax mag ñëwul ni fayda comme jigéen rek seet non peut-être que moo ko tontu waaw daa ça veut dire gis na noonu gars ñoom ñëpp ku nekk dañoo xas sa morom ñoom jàpp nañu ni paa bi. mais moom tamit moo ngi tooñ parce que mënoo mënoo mënoo gérer si forte nit ki rek jàpp ne moom moo tooñ. léegi bu fekkee yaa ko bind donc. léegi en tant que artiste sax moom lii da koo warul en tant que artiste. non moom moom yàgg na si moom ñëpp lay tontu dama ne tontonte waru ko déjà. taxawul tontu wa dama ne. te yow des fois am am am ku la bind li nga tontu. man. ah man. des fois yow yaa ko mës a gis. waaw man. waaw déglu ma. non non waaw da nga may déglu da nga may déglu gis nga gis nga preuve. à l'appui laa lay tegal preuve à l'appui laa lay tegal. indi preuve. gis nañu Chamet Cissé génn wax ne Mia diw da koo takk astafurlaa diw da ko euh, moom lay génnal gis déggoon nañ fi rumeur yépp ñun ñépp ci jour bi moom ci boppam mu def publication ne gis ngeen li ma leen doon wax xam nga wax public wax publication bi nit ñëpp reprendre ko yaa ngi dégg ah, déedéet ah, yaa ngi dégg ah, ñëpp reprendre ko mm-hmm. léegi après Mia def def sortie def posté ci ci ci sur son compte xaw ban compte la ti je sais pas def post daat ne diw de boo ma doon waxal sama papa sax xaw ma la nag la nag lan sama moroomu papa nangam ak nangam démentir di ko Ahmed Cissé wax. wax nag si émission bi nee na sax dootu tontu. yaa ngi dégg bi mu bi mu gisee loolu immédiatement dafa dawaat ci Facebook am daal ne wu waxuma leen sax ci cas bi mais beneen cas laa leen di wax. Hmm. kon ça veut dire que kon. moom mi ngi bàyyi xel. mais aussi mi ngi koy tontu gis nga nit ñi duñu ay dof nañ waxante dëgg fii koo fi waxal xam c'est-à-dire nit ñi dañuy bàyyi bàyyi mu sedd ne boole pat ak organisé wala ñuy gérer seen côté bi leen arrangé mais fii ku ne xam na waaw kay. yow dofoo tey Ousmane moo dof loolu nga bëggoon wax. waxaat naa la tey dofoo Ousmane moo dof parce que moo gis lu ne ñaañi muy lii du si kii et c'est normal argument am la donc ku nekk sa argument yaa xam. Mm, noo koy noo koy gérer. mais nag nit ñi dofuñu quand même. alors nañ wax si nga xam ne nii moom mooy euh, Sadio Mané que Sénégal dafa war a fóol ak RDC